murtajan minnatun lana jariun auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu dellu siwaat nañ seen émission bi ñu tudde madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci suñu site bi ñuy wax 24 actu ñu ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla defal nu tawféex ba li ñuy wax ñu jariñu ci yéen ngeen jariñu ci di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi ak ñi nga xam ne danoo tukki nekk ci bitim réew yal na yàlla jàppandil seen i yëpp ñi nga xam ne tamit danoo nekk fii ci réew mi yal yàlla def jàmm ci réew mi defal nu ko tey ñu dellusiwaat fas yéene waxtaane benn tomb bu gàtt bu itteel tey de li ñuy soññe mooy e, ñu soññe ci mboolem jullit yi ak mbooleem nit ñi rawatina fii ci senegal ñu itteel xam-xamu faj xam-xam boo xam ne dafa jëm ci faj bëgg na ñu itteel ko lool ndax dafa am lu ci seetlu loo xamante ni jàpp naa ne soññe ci am na solo lool ah, rawatina muy góor muy jigéen ku ci nekk war nga cee def comme tulaayal kàttan rawatina ab julit nag ndax dafa mel ne xam-xam boobu jullit yi dañ ko fal ba delloo ko ginnaaw lool ci ñoom te loolu dañuy yëg ne li nga xam ne doomu aadama jenn benn bindeef bu mënta dee amul muy jullit ak kudut jullit waaye noonu la mel ci tamit kuy ak kudut da ngay wéré di yàlla moo koy tege te mën la ne sax <coughs> julit nag daf mel ni ay nattu da ko bari lu mu koy dal rawatina ci àdduna ndax dafa bokk ci jaamu yàlla maanaam nattu di ko dal mu koy muñ dafa bokk ci jaamu yàlla waaye teewun nag suñu borom nee na fàggandiku leen fàggandiku leen wala fii di wax ne faju fogaru moo gën faju moo gën faju loolu li muy tekk rek mooy bu ci kanamee tuuti dina am loon ci junj loo xamante ni li tax ñu ne xam-xam boobu dañ ko war a jàng muy faj suñ borom nee na jàngoro ju ma wàcce rek wàcce naa garabam kon loolu day wane ne doomu aadama yi dañoo war a gëstu kon kon jàngoro feebar bu wàcce rek am na lu koy faj yellante sun xam-xam àgg ca ak sun xam-xam bañ ca àgg te sun borom nee na ñun ñi nga xam ne ñoo di gëm alxuraan nee na lépp mu ngi ci alxuraan lépp mu ngi ci alxuraan. kon jullit bi am na lu dagan mu fajo ko ak lu daganut mu war koo fajo yooyu dagan nag daf ko war a xam moom ba ko fajo yi nga xam ne daganul mu bàyyi ko boo gisee njaxas mi am yi daganut nit ñi di fajoo yu bari ay xàmb ay xërëm ay pitaaw ay rey nangam yooyu yëpp ngir faju yooyu lislaam santunu ko wax dëgg yàlla santunu ko santunu ko fajoolu araam moom lislaam santunu ko lislaam moom may na la boo demee ba xiif ba dem bay bëgg a faatu gis medd nga lekk ko waaye nag amaana loola la la may nga dund waaye fajoo nag lu araam moom lislaam mayu la ko lislaam mayu la nga fajoo lu araam moo tax kon jullit bi lépp lu muy def na ko xam ndax ñun àgg nañ ci xam-xamu pikir bi ni pikir xam nañ lan lañ ko composé ndax doom yi nii naan xam nañ lan lañ composé doom yi te pourtant loolu lépp xam-xam la ni ko jullit bi xamee keneen xamee li la ko jullit bi war a xamee li ci gën a tiis nag tax ñu yëkkati kàddu mooy ñun ñi ñëpp gis nañ ne saa sunu kilifa yi feebare wala kenn feebar dañuy wax nañ ko génne réew mi. am réew nag bu ñu ba ñoom la lekk ñu indil leen ko ci bitim réew lay jóge seen ak faj ci bitim réew lay jóge kon nag wax dëgg yàlla loolu tiitaange la war a doon ndax bu fekkee nag da lay taxa te waxoon ne borom xam-xam danoo wax ne nit ku nekk fa mu feebaree. maanaam foofa garab yooyu ñoo koy faj ñoo koy faj boo gisee nag xañ na loolu moo waral tey sunu kilifa yi ginnaaw ñoom mm, bitim réew la ñuy fajoo fa la ñuy lekke kon ku feebar foofu nga jëm ndax fan jëm nag lu ca jara moytu ndax am na fa ndax ña faj ndax ay jullit lan ndax yéen a bokk diine ndax lan lay defal amul lu ci sa diine bañ sunu mag ñi fii rek am na ci ñoom boo leen masaan di opeere wala nga bëgg leen def nee na dañ lay laaj ba xam ndax li ngay def mbaa dara luy màndal bokku ci wala li ngay def maan diggante bi mbaa waxtu julli du fi paase <coughs> yooyu yëpp nag <coughs> jullit moo ko mën a xam jullit moo ko mën a xam boo gisee sëñ son yi bu mbàkke mi nga xam ne téere bi ci bari ci xeeti faj def ko ci indi yoo xamante ni bu ci nit ki delloo yooyu yëpp da cee kii kon loolu mooy nit ki ni mu war a xamee ni la war a dundee ak dundam da ko war a sàmm war cee kii benn bi ci des ndax ña ngay tëddal ña lay faj ndax ñooña ay jullit lan ndax lan lay def imaamu xasaali daana wax ne benn jullit bu mu fi dikkat di ma wax ay xam-xamu fiq ak xam-xam yooyu nanu jàng médecine ginnaaw yow li ñuy lekk lépp dañ ko war a xam médecine moo ko a xam li ñuy naan li ñuy def nangam suñu feebaree waaye suñu feebaree jël sunu bopp jébbal ko ab yéefar koo xam du jullit ñu jébbal ko ko ndax kooku bokk naan pas-pas bokk naan pas bokk nu pas-pas te am na luy dagan ci ñoom loo xam daganut ci ñun kon ñun war na noo dem jàngi xam-xam boobu xale yu ndaw yi di ñëwaat nañ leen former ñu jàngi muy góor ak jigéen ñu jàng xam-xamu médecine médecine war naa bu fekkee saa bu nu feebaree ku feebar ci réew mi lay sa xalaat mooy nga génn réew mi loolu wóorut sax wóorut nit ku feebar avion bi ñaata nangami temps nga ciy def loo xamante ni diggante boobu opéré la fi faj la fi lu nekk xaj na fi waaye diggante boobu ndax mën nañ la fee faj. diggante bi ngay fajoo ji fu sori nga xam ni nga def cinq heures de temps wala quatre heures de temps ci avion bi loolu dafa dalut xel sax ak kilifa diine koo xamante ni ni nga meloon mujje woo lu dut ci ay loxo yoo xam ne ay loxoy nasaraan la ñu lay faj ñu nekk ci sa kaw ci sa biir sa biti loolu jàpp naa ne war nañoo farluwaat bu baax a baax a baax rawatina jullit yi ñu farlu ci faj benn bi ci li tax ñu gën a wax lii nag li ci gën a yéeme mooy euh, ñu fexe jigéen ñi jàng faj góor ñi jàng xam ngeen ne ñaaw na lool jigéen góor jigéen ju toll ci état dem jigéen góor di ko di ko visiter di loolu moom vraiment lu lu xaw a yéeme la jigéen tëdd góor di ko visiter loolu moom lu doy la donte daroore la lu mënta bu fekkee loolo fa sës looloo fa sës waaye nag ci programme ak nit ñi ak ñu euh, recruter nit ñi ñenn ñi jàng xam-xamu médecine moo gën ñëpp rek bëgg a toog ci bire yi di signé ay këyit rek yooyu wala ay jullit yi tamit ñoom it ñu taxaw rek jàpp na rek jàngale fiq rek mooy mbir mi déedéet jàngale diine jàngale faj ngir nit ki dund loolu day warugar jullit yi dañ cee war a sacrifice seen dund li ëpp ñu jàng faj ngir faj dafa doon loo xam jaamu yàlla gi ci nekk bariwut ci lu mu nekk ndax nit ki bu wérul rek du mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gi ñuy wax lépp day fekk nit ki wér léegi li gën a tiis def ngeen ne dara gënu tiis nga sa jabar feebar nga dikk ci hôpital bi nga fekk fi médecin bu góor nga dikk mu ne la sëñ bi lu la indi nga ne ko sama soxna feebar mu dikk mu daal di dugg moom ci biir daal di tëj bunt bi ne la génnal loolu ndax ci xel rek rafetlu na ko xel waxuma la diine waaye xel dong amul xel tey mënoo woon a dox sa kër fekk jigéen wala góor mu nekk ci kii fekk ñu ub ubbunt loolu sa xel loolu lu nekk la lu nekk ci mën a juddoo loola nag ni nga koy dawale sa kii nag ni nga ko war a dawale sa soxna ci hôpital ñu fexe jigéen ñi ñu jàngi jigéen di faj jigéen góor di faj góor donte nag xañ na waaye bu fekkee xam-xam yi gën a baax yépp góor ñee ko méngoo bu jigéen feebareet noonu lay dan loolu lay doon te wax yàlla yooyu dafa wóorut jigéen yooyu dafa dafa doon yoo xam daal bu am xel sax di nga xam ne xel dong waru koo nangu waxantuma laak diine ni mu bañ a nang góor di don ta maye na ko nang bu dee rus boo xam daroori moo am teewut dan laa war a faj góor moom la la jigéen bu la góor waree opéré dala laa war a opéré waaye yooyu yëpp nag ci ñàkk farlu rek lay dellu si waat rek lay delluwaat góor gi bu demee ba jigéen ñi tamit mën a tiim góor di ko faj xañ na góor amu fa lool loolu bariwul sax waaye nag bari na ci jigéen ñi jigéen ju tiim góor ji góor gu tiim jigéen di ko faj loolu moom bari na moom loolu moom bari na euh, beneen bi ci desaat tamit ba ci àgg ci yooyu yëpp da ngay xam ne rek góor goo xamante ni daanaka yaay réew li boo demee ci hôpital yi da ngay gis góor goo xamante ni daanaka mooy sage-femme bi mooy dikk di xool ndaw si bu dee étape lu mu mën di doon moo ko ciy xool yooyu nag li muy wane rek day wane rek ne wax dëgg yàlla delluwu na ci euh, kii yàlla lislaam santaane waaye loolu lépp dafa war a dellu nag ci ñun ñëpp ñu jéem a gëstu xam-xam boobu nag suñ ko gëstoo góor ñi jàng ko jigéen ñi jàng loolu nag kàddu la goo xam ne ku ci am doom joo xam ne toll na ci war a kii nga fexe orienté ko ci xam-xamu médecine xam-xamu médecine ndax lu ama am solo la pour ñu mën a faju rawatina kuy ab jullit dafa nga ne kilifa goo xamante ni kilifa diine la moo xam ci jigéen la wala ci góor góor tiim ko di ko faj wala di ko kii loolu dalul xel te silvise wut sax ci benn kii loolu nag leen ko teg rek mooy ji jullit yi ñoom ñoo ittewut woon seeni mbir te yonante bi salaa salaam nee na bokkut ci ñun ku ittewut wu mbiri jullit yi ittewoo ko nag mooy ñu orienté nit ñi xool ñi war a jàng médecine xam ñaata lan ci am at mu nekk loolu ci état bi lay dellu ñaata lan am ci ay jigéen ñu jàng nangam ñaata lan am ci nangam waaye am réew moo xamante ku feebar la sa xel di njëkk a dem fu ñu koy yóbbu fan lañ koy yóbbu loolu bu ñu demee bay dunde noonu ñëpp ndax mën nañ ku feebar nga génn ku feebar ndax mën nga am lu la génne ñi mënta faju wax fu ñuy dagg bi avion fu ñuy jëlee lun kii fu ñuy nangam. te li koy waral ñu ne am réew feebar bi fa nekk kenn mënu ko faa faj loolu lu tiis la loo xamante ni dañ ciy delluwaat bu baax di ci ñu ku nekk rawatina ñi ci toll ku ci nekk jàpp nañ ne kër dañuy wax na jëmmi kër sax ba ci kër gi nit ñi dañ leen a war a xamal docteur garab yi nii naan ak yépp ñoom ñu am ci xam-xam loolu jàpp naa ne docteur yi waroon nañ ci sensibiliser nit ñi xam doom bi wan waxtu nga koy naan lan lay faj lan lay def nangam lan lay def loolu nit ki yeewu ci. ndax dund moom ku nekk xam na ne benn yoon la koy am te dund googu dafa laaj nga waggar ci te waggar ci mooy nga xam li ngay li ngay lekk faju nag bokk na ci euh, boroom xam-xam mag nee na woon faju mi ngi tàmbalee ci xam li ngay lekk li ngay lekk lan la maanaam lan moo ci baax ndax baax na ndax baaxul lan lay def ci sa wér yaram lan la lay jural boo ko lekkee loolu tamit mooy première faju xam ngeen ne li ñuy indil ci feebar léegi kenn xamul nu mu toll mag ñi xamuñu ko woon euh, kon nag bu ko defee léegi liñ ciy wax wax dëgg yàlla li ci gën a tiis daal mooy bokk na ci loolu bokk na ci góor goo xam ne jigéen joo xamante ni daal wax dëgg yàlla góor a lay wisit booy am doom moo lay seet booy nangam moo lay seet yooyu moom diine nanguwu ko donte daroori am na waaye loolu moom lu gën a kii la li ko waral nag mooy ñun dañoo sàggane xaj xam-xamu faj dañ koo sàggane desal ko ginnaaw te ku nekk ci sa bopp rek war ngaa yëg ne faju moom ittewoo nga ko ittewoo ko nga ko war a ittewoo nag xam-xam dafa war a nekk mooy nga am ko yow wala sa njaboot kenn am ko wala sam réew am ci lu ko doy mooy xam-xam bu góor ak jigéen ba léegi boo duggee gis nga kaar yi nii dugg bu ñu demoon ba am transport yoo xam jigéen ñi dañuy nekk fee góor ñi nekk fee nangam waay yooyu yëpp amul tan jàng ko nag xereñe ko faj ki koy jàng ko war a xereñe xam ko bu baax a baax a baax du lu muy làmbatu amul lu ñuy làmbatu ci nit li nga mënta faj xamoo ko loolu waroo ko làmbatu loolu nag bu fekkee dem na ba euh, buñ ko gisee ñoo xam ne daanaka wax di yàlla ngay wax ne dañuy làmbatu ndax euh, làmbatu mënta paase jigéen dikk loolu kaamu ma kii la kii dafa toll état ñu dem ca ña koy wisit ñu delluwaat ci yeneen kii ya ko fan ko war a xoolewaat ñu dem ñu ne kii dara jotu ko loolu mooy day mel ni làmbatu la rek làmbatu la jigéen joo xam ne da nga ne dafa tollu diggante dem fan ko war a defee wala wala fan ko war a defee la nangam ñu xool ko ñu ne amut visite ñu ne nu mu dara jotu ko loolu day mel ne moom làmbatu la moom làmbatu la doomu aadama nag kenn du làmbatu ci ay aw yaramam aw yaramam loo ci xamut mook diine ñooyam amul làmbatu lu ci nekk da nga ko war a jàng ba xereñe ko boo ko xereñewut nga yem fa nga war a yem yooyu nag wax dëgg yàlla jural nañu lu bare bari jural nañu lu bari a ah, ku war a dem yàlla mooy yóbbu sa waaye ñàkk xereñe loolu tax na jur na lu bare bari kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm li ci metti daal mooy wax dëgg yàlla te tiis mooy bu nu mënee dem ba ci sun réew mi nag jigéen góor moom di wisit jigéen bu nu demee ba mën a toll ci jigéen buy am doom ay góor a koy kii ndax tey bu nu ko jàngoon ak jàng loolu jullit yi ñu jàng loolu tey xale bi bu juddoo bu nu ko juddoo ci hôpital bi kan moo ko war a tuddal baati seere yi bu ko yaayam tuddalee wala ki médecin bi koy kii bu fekkee médecin jullit la moo ko war a tuddal. xaj na beneen xissa bin ci waroon a nettali te am lu am solo waaye waxtu wi jeex na euh, jàpp naan sama technicien li ci des bariwul bu fekkee bari na ñu nettali ci benn xissa waaw liñ ciy nettali mooy koo xamante ni jigéen la woon moom Amérique la nekk sax neena bi mu tolloo ci am doom nee bi mu tolloo ci am doom dafa dem ci euh, médecin yi ci hôpital bi di bëgg am doom nee na bi muy am doom nee na ki ko doon uh, seet ku jigéen la nee na bi mu ko seetee ba ngoon jot mu ne ko man kat maa ngi wàcc waaye yow xam naa leeg nga la ci waxtu am doom waaye nag am na benn médecin bu war a gond si médecin bi war a gond nag ci kanam tuuti góor la war a doon nee na bi mu ko waxee loolu ndaw si daa jooy ne ko di jooy di jooy mu laaj jëkkër ji ne ko lu muy jooy mu ne ko kii kat nee na góor du muri aw yaramam góor du gis jër yaramam loolu jaaxal ndaw si ko doon seet ne man de li jaaxal na ma ndax man mii di médecin de sama yaram yaakaar naa ne genn góoru Amérique yaakaar naa xamut lu euh, umpale wu ko ci sama sol yi nag sama nangam ak ak sàggan nee na bi mu ko waxee loolu mu tiit mu daan nekkoon baax na kon léegi dinaa toogaat xaar ba nga ba nga am doom ma soog a dem nee na bi ma toogee di toogaat tuuti ne ko waa léegi nee ko man maa koy xool ba mu am doom léegi dootuma wàccati ndaw si daal noppi. nee bi mu noppee mu toog di ko xool di xool nee na ba mu am doom mu dindi ko nee bi mu amee doom nee na far benn médiateur ñëw bi mu amee doom ba noppi nee na bi mu dikkee nag ndaw si waa ji di ko dénk ne ko yéen de na ngeen moytu liy dal jigéen ñu bari fii ci Amérique di la dal mooy jigéen ñi ñu ci bari dañuy def bu nu amee doom balaa seen merete jeex ñu tàmbali di sëy loola nag yóbbee na leen feebar bu mag a mag boo xamante ni feebar boobu moom la ni daanaka dundaale ba dee du wér mu ne ko ah nee na bi ko waxee loolu jëkkër ji daan ne ko ah ñun loolu lislaam dañu koy tere de lislaam nanguwul boo amee doom bala ngaa sëyeeg sa jëkkër da ngaa dem ba sa meret jeex waa ji daal di jaaxle na man lii ci xam-xam bu yàgg laa koy jàng kii ma wax ko ko benn baat rek mu tontu ma ci diineem daal di noté ndaw si daal di noté nee na bi mu toogaatee nes tuuti beneen médecin ñëw seet siwaat ko daal dikk daan ne ko ah am nga doom mun ne ko waaw mu ne ko léegi yow sa doom ji del fexe muy tëdde wetu ndijoor ndax gis nañ ne wetu ndijoor tudde ko mooy fonction bi gën a baax ci xale bi pour mu màgg màgg gu baax pour bu pour ni muy nooyee ak màgg nee na bi mu ko ko waxee jëkkër ji ne ko ah ñun lool suñu diine dañu koy aaye de ñun mag ak ndaw kuy tëdd sa wetu ndijoor ngay tëdde ne waa ji nee na ma gën a jaaxle ma ne ko ah, man lii li ma koy jàng xam bu yaatu laa ciy jàng ay at yi kii ma wax ko ko jàng ko mu ne seen diine da koo kii li ma ci bëgg a nettali nga xam ne ndaw soosu ci si question yooyu mu doon wax ak ni mu nekkee matière bi ci la mujj dem ba mujj mu dugg ci diine bi mu duggee ci diine nag mu daan ne naa dem jàngi diine ci centre nee na bi mu koy jàngiwaat nee na bi ma demaatee ci eh, benn médecin dem fa. bi ma demee gis ci euh, ñu ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na xaj soo ñëwee xab ci ndab dañ ko raxase juróom-ñaari yoon bu mujj ba ñu def ci suuf médecins yi nee na man li ma ci gën a jaaxal xam naa ne euh, kii bi nekk ci maanaam tooke bi nekk ci làmmañu xaj woowu ndegete amul dara lu ko mën a setal lu dul suuf moo ko mën a setal te pourtant ordre sewel a nga ci yeneen a nga fi yeneen a nga waaye nee na li mën a rey microbe bi mooy suuf nee na nag ma daal di dugg ci diine nag yëg ne nag ñii nag seen diine ji am na solo gis nga ne yonante bi kon yépp daf koo jàngale waale murtajan minnatun lana jariun